bokkuma ak ñoom xam naa ni daal si sûr mooy Ousmane Sonko dana génn si kaso bi xaw ma dana nekk candidat du nekk candidat waaye loolu leeru ma waaye kii nekk président de la sama loxo dana si dugg ak loxo te lis des moom bareetul te soriwul te kii te kii réew mi bu ngeen gisee si xam si wetam mooy am na kër ma signal woo xamante ni Ousmane Sonko day génn si kaso bi loolu tamit dinaa ko joxe garanti leneen li nga xam moo jëm ci mbirum jëf ji ñu koy jëf nag muy jëf ju ñaaw joo xam ni depuis 2021 ba tey Macky Sall ci loolu lay dox muy jëm ko toroxal jëm ko humilier jéem ko tàggaleeku njabootam jéem ko xañ liberté am ba ni mu ko def ni 2021 ba tey tànk yooyu mooy tànk Macky Sall ngir bañ mu bokk ci élection xeex na ko côté bu nekk muy xeex bu ñaaw ba tey li am am waaye li ma ko wax rek mooy képp ko mas a jóg ci ku baax ngir defar sa askan ngir defal sa réew yàlla bool na la ak buur bu saay-saay boo xam ne moo lay gàllankoor kooku boo tàmbalee si